mbokk yi taxaw seetlu ci topp ñu dikkaat ak yéen ci benn rebondissement ci dossier nabu Dash ak Khalifa rappeur mbokk yi xam ngeen ni yàggul dara soxna si di nabu Dash di femme d'affaires entrepreneuse euh, dafa porté woon plainte fële ci cybercriminalité ki ni wax Khalifa rappeur làmmiñu askan wi noonu naa fekk yi muy but buti ci kàddu yi mu yëkkatoon jëmale ko ci moom wax ni ab euh, caga la soxna si porté ko plainte ba ñu teg ko loxo waaye génn na ca fan yi ñu seetlu nakate amoon na benn entretien goo xam ne am na ay weer ci ginnaaw soxna Nabou Dash sëkkoon na ko ak waa Leeral TV ca foofu nag nakay avoué na ni elle a été escort girl maanaam mën nañ ko jàppee ab caga ci fii ci euh, Sénégal fële ci Europe te am na ci regret regret regret bu euh, baax a baax kon mbokk yi ndax xalifa mën nga woon ci dëgg la mu wax mooy li am wala du dëgg waaye lu ci munti am mel na ni dossier bi daal euh, jugaat na coow leen ci bëri ba site yëpp daanaka moom euh, ñu ngi koy euh, jàllalewaat Nabou Dash a été prostituée par le passé am na ci regret bu baax bu ma dikkee ci baatu nasaraan na mu ko leerale Euh, ci laaj gu jëm ci wàllu woowu noonu nga xamante ni amoon na démb gu lëndëm nee na mon travail était d'accompagner des hommes riches lors de leur déplacement je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué c'est un choix difficile à faire et j'ai décidé de le faire sama m'a permis de connaître la rue, le monde de la nuit. À l'époque, te le seul truc que j'avais trouvé et je le regrette. kon loolu weesu na démbam loon kon tey ma ngi ci leneen ndax gis nañ ko ci yeneen activité waaye lu ci munte am daal cooli daal euh, nekkoon na fi daal lu xaw a doy ci euh, place euh, publique bi but butee na fi woon comme ni ko xalifa rappeur di waxee maintenant l l'est elle ne pas wala elle l'était wala elle ne plus lu ci munte amaat daal mu nekkoon sunu taxaw seetlu ñu dikkoon ci ak yéen ci rebondissement ci dossier xalifa rapport boobee nga xamante ni moo jiñoon Nabou Dash ab euh, prostituée